booy donc dëgg la ñoo bokk kër mais depuis boobu ba léegi maa ngi amuñu temps pour waxtaan. nga paa ni mu bëggee nekk ñun ci kër dafa métti trop. surtout loolu nag ay locataire lañ donc ay locataire lañ mais dañuy fay. xaalis musul manqué. gis nga loolu nag yow miy jigéen bu nekkee yow da nga kaa nangu man miy góor du ma ko nangu. ah lu ma nekkul ay question mën nekkul leen gis nga yoon dafa am. Ah, gis nga dafa am droit ci biir kër. waaw man am na yoo xam ne nekkuma ci man nekkuma ci yoo xam ne da nekk ci kër ñu lay humilier affaire yu ñàkk fayda yooyu. waaw ah nii nii ngeen ko bëgg a jàppoo yéen daal nii ngeen ah yow ba ma lay luyee waxuma la woon lii. salaamaaleykum góor gi ñun duñu ay mala boo ñu fekkee ñu toog mën man soxlawu leen ko. dama leen a nuyuwul. dimbale ma taxawaleew man maay wax ah. Pape Souroulé mag su amee bu amee fulaak fayda moo ko may boppam yaa may dégg. su ma ko amul nag su ma ko amul nag. uti ji ko ma uti ji ko yaa su may wax damaa bëgg ngeen noppi. noppi wuñu. ñàkk fayda. yow lii yow waxtaan bii nga nga ci jublu nii boo ko def. mosoo koo def ci kër gi nga ñëw tey di def ah. góor kii ñëw bokk dëkk ci kër gi. waaw léegi am nañ droit génn ci mbedd mi toog waxtaan. lan moo tax defoo leen ko ci ëtt bi lu tax defoo ko fa lii mooy yëfi kàccoor yëfi saay-saay ah di ko iri ci mbedd mi di ko ping pong di ko wax wax ju bon di ngeen yaakaar ni booy ñun dañu jël lépp teg suñu tànk feetaat. fais attention de ngëj yow war nga am fulaak fayda waaye xam nga ma war ngaa am fulaak fayda gis nga mag bu amee fula moo ma ni mag bu moo ko may bopp na mujj tay laa wax yow demal jom torop moo leen fi fekkaat garam yow ñun teel la ma ni suma fuulaa xam nga yow tàmm nga xeex mais tey duñu xeexal yow ñun dañoo woo maa lu ma neex ngeen di pour looy waree kii comme que amul jabar ba koy mu sol ni mu tilimee. léegi heure bi jot na maa ngi ñëw dugub. waaw même man dama war a préparer ndogu. waaw yow kon après ñu dégg waaw ah, après ñu ñëwee ñu gën a yaatu. kay kay kay kay kay kii woote bi yàlla gën bu nit mais maa ngi toogoon fii naa la bàyyil Aliou. Aliou caga la. ay papa bànneex. caga bu bon a bon a bon a bon mooy Aliou. Aliou waxul waxi bon de. dañoo toogoon di waxtaan doom entre ci kër gi donc nga luyee ci kër nag bi la yàlla defar. genre Aliou gi taxul sama classe gi ñoo tax. ah waaw yow kay loolu nga a. loolu nga war a comprendre sama classe gi tax. mais xoolal dóoral ñaari paan yi. taxawal tournel delluwaat xoolal dafal entrée amal jàmb rek bëgg bëgg yaa ngi toog bëgg ma tëgg ça va ay si jàmm waaw bëgg lan moo tax ngay toog fii xoolal sante doo ah jógal bëgg nga ngay toog doo jóg mënoo ñëw ñu lan la bëgg wuy ma yow tamit ah bëgg da nga woo ah bëgg suñu ma lan moo la naqari bëgg bëgg eh doom bi dama xam da nga woo xaa n bëgg damay dóor bi dégg maa ngi trente jënd jënd jënd dégg li ngay jooy bëgg bëgg mu ngi jooy s'il te plaît jooy

tekki bëgg dafa métti ça me fait mal. yow bu commencé bëgg lan foo même. bëgg laa wax de yow kon yow sa loolu yaa ngi ci ba tey man ma fan na nga kat nekkate yaa ngi ci ba tey. Ah, man loolu dama koo bëgg te jaawaat de ma juuma man ci lan. dama bëgg ngeen comprendre ma lii yàlla moo koy dogal sama digganteeg moom. na loo mel. gëm naa la comme na la foofu toppatoo ba guma mënu ma ko koo xam ne réew la ñàkk na kerta te day dóore moom dafa mbij kenn du ci dugg comme yow da ngaa bëgg jëm ko toppatoo man kay jëm naa waxal moom dayes ana dafa jox xaalis man loolu sax ko man nga lan moo ma am na bu mu mën a def te gis naa bi may waxal moom regard bi ma xool. fekk bëgg ma laa reere. parce que yi bëgg ma la jox am. si daf may jox am man ah, dama ko bëgg jaaxaan xam ngeen yéen seen yi ngeen def moo tax nit parfois dina bëgg jaar ci benn yoon mais du ko bëgg bi koy mokkee moom day gën a dellu ci ñu nekk te man dama bëgg mu ñëw. yéen gis ngeen kii ni mu mel dafa rafet bu ko toppatoo day ñëw te man dama ko bëgg jaaxaanoo. ñoo ngi ci biir yeggale ko parce que man li ngay wax nii ay yëpp la ma def daal dama ko bëgg topp topp